problème ak Ahmed Aïdara. bon Ahmed Ahmed aussi ah bon man amuñu problème suma suma frère de Guédiawaye la ñoo bokk dëkk Guédiawaye ñun ñaar euh, mais euh, amuñu woon problème en tout cas ba démb ba démb amuñu woon problème euh, mais démb mënuma toog man. man ñoom lu ñu doon def foofu seen télé bi ñëw jël ku leen neex wax lu leen neex xëy suba ba ngoon wax lu leen neex loo xam ne nii méngoowul ak dëgg man ba ma fa demee man mënuñu ma intimider ba du ma wax li ma xalaat parce que dama ñëw ay dara bugg moom tamit. Ken a animateur journaliste ou homme politique et ça c'est des abus qui sont dangereux dans un pays Ken waru ko ce que Ahmed est en train de faire Ken mënu ko woon avant l'élection. mais gis nga élection yi jeex et ça je lance un appel solennel et ça il faut que l'État prenne ses responsabilités nga abus Ahmed c'est il faut arrêter ça élection le doon mais il y a des choses qui sont inacceptables dans une démocratie ou Ahmed Haïdara est un animateur, ou c'est un journaliste, ou c'est un homme politique. Mais il ne peut pas être dans le mélange des genres. Chaque jour, au bichot, mon tek ou dara mounoul gagner mairie gagner way ne am dara gagner parce que bu heure bu joté nit ñi dañ ko baye muy wax mais bu joté ñu pas ak mais moi je n'ai pas de problème personnel avec lui sama way la demb ñew mu ma gëmloo taxaw bëgg ñu forcer ni deuxième tour am na di teg di wax ay résultats yi ay mbir yoo xam ne nii mais toog antenne jëlewu ko fa dara ma ne ko yow mais yow da nga fi toog comme journaliste wala da nga fi toog comme comme ku fekk ku bokk ci benn camp donc amuñu problème c'est des problèmes politiques maintenant c'est des questions de positionnement ni muy doxalee bokkuñu doxalin ni muy gisee gisewu ma noonu suy politique na ko assumer mu ankaw mu mu bañ a kagule et puis mu def politique ci normal ak façon bu loyal xam nga politique ku koy def da koy nangu am courage assumer ko mais bu nga jël télé toog chaque matin nga jël sa benn émission def 30 minutes def ko tribune politique xas ku la neex saaga ku la neex mais fu loolu ñu ragal rek nga koy def mais suñu classe gi ragaluñu te man ak moom ñoo dëkk Géejawaay man xam na ma bu baax a baax a baax man amul ndaw bu dëkk Géejawaay boo xam ne xaw ma mun naa yaru nag mun naa mun naa mun naa dox ci jàmm mais man géejawaay laa dëkk man marché bu bees laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee man man man njàng indiwu ma géejawaay wala ma toog ba màgg ñu ñëw indi ma géejawaay moom moo la gën a xam ni maa ko gën a gé dëkk géejawaay dix mille fois te fa ma dëkk am na heure yoo xam ne ni moom ñemewu fa taxaw dox fa moom kese donc ça il faut que ça soit être très clair te leneen li nag su bëggee incha allahu rabi dinañ ko régler géejawaay te li ñuy régler géejawaay mu ngi suñu kanam mais sinon amuñu problème ah c'est mon ami mais mais politiques politique bi bon comme il veut introduire maintenant des rapports politiques dans la politique dans nos rapports mais nañ ci dem incha allahu rabi je nañ